waaw maa ngi sant yàlla di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu tey nag ñëw nañ ci ngir ruy ci woote bi nga xam ne suñu kilifa suñu sëriñ Cheikh Mouhamadou Mountakha woote na ko doon dalal président de la République du Sénégal woote boobu it sëriñ bi wax na dégg nañu président yi wax na dégg nañu wante li am solomon mooy euh, ñun ay woy ngëm lañu te Sëriñ lañu yàlla booleel moom lañu gëm moom lañu doyloo bu fekkente ni Sëriñ Tuubaa Cheikh Mamadou Muntaxa wax na président la république ci jëlul campagne bi ne ko bàyyee naa la sëriñ Touba nga dem ci bërëb ba ñaan la nga bëgg sunu borom dogal mu dem fa loolu moom sama kanam la ndax keroog it bi président dem ci bërëbu sëriñ Touba it ñu ànd mu ñaan lam ko bëgg suñu borom defal ko ko ci barke sëriñ Touba nam ko bëggee te àndut ak coow àndut ak wax président dikk na dafay ne dafay sant sëriñ Mouhamadou Mountakha ba pare sant le sëriñ Touba loolu it ñun taalibe yi nga xam ne ñoo yaakaar sëriñ Touba nekk ci ginnaaw sax Mouhamadou Mountakha rafetlu nañ déplacement bi te it wax na ne engagement yi mu jëloon ci Touba dana ko continuer di ko wéyal loolu it rafetlu nañ ko te ñu ngi ko ci félicité di ko ci soññ sëriñ bi lim bëgg ci Touba mooy ñu wormaal sëriñ Touba wormaal sëriñ Touba boobu nag ñun taalibe yi ñun kenn ku ci nekk yaa war a régler sa bopp lijjanti sa bopp ba li sëriñ bi di tere benn taalibe bañ koo jëfe loolu it ma ci soññ sama bopp di ci soññ ñëpp ñu dellu di am mbégte ba bi sëriñ bi waxee ne benn soxla la ci président fekk mooy ñu jàppale ko ci warmay Touba loolu it wane na ne Touba ñi sax di bëgg sëriñ Touba rek doyloo sëriñ Touba rek te luñ soxla sëriñ Touba rek moo ñu koy def loolu it ñi soññaat président la république pour lépp lu mu góorgóorlu ci Touba mu gën ko yokk ngir sëriñ Touba Touba nag ay ab dëkk la ak i nit te ku ne Touba ne Mbacké Mbacké Touba yëpp sëñ Touba leen boole yilif kon département de Mbacké ay nit a fi nekk ak ay infrastructure kon bu jàppalee dëkk bi ci infrastructure yi na jàppale niti Touba niti département bi ak niti Mbacké ba li ñu yéene ñu mën ko def mais nag bu fekkee dangaa jàpp ci infrastructure yi te jàppaloo nit ñi tamit dafay am déséquilibre kon ñu koy ñaar mu gën a góorlu ci département de Mbacké moom président de la République en retour it ñu ngi koy manifester suñu fidélité ci jàppale bi ko di tamit doon lu sincère ñu ngi koy gën a feddali fi may daanele mooy di xamal waa réew mi que bépp réew boo xamante ni xéewal yu mel ni pétrole gaz feeñ na fa population yi danañ reyante seen biir ba daanaka duñ ko jariñoo sénégalais yi nag am nañu maturité boo xamante ni booleeg am benn chance bu yeneen dëkk yi amul mooy am kilifa sénégalais boo fi gis rek 80 pour cent am na kilifa gu mu yaakaar su ko tegloo mu teg su ko jógee loo mu jóg su ko bàyyi la mu bàyyi kon nag nañu fexe ba di yaatal waxtaan yi te waxante dëgg te bañu naxante pour ñu mën a préserver jàmm ji nga xam ne am na ci Sénégal